نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ñoo ngi sant sunu borom subhanahu wa taala ñoo ngi julli di sëlmal ci ab yonente Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi gërëm yàlla bi mu nu defalaate tawfiq ba ñu dellu siwaat ci doon keppaaru xam-xam waaye ci doon keppaaru alquran muy téere sunu borom bi subhanahu wa taala di téere bu màgg muy li gën a jub ci gën a baax ci ëpp njariñ ci lu ñu toog di ko waxtaanee téere la boo xam ne ku ko dégg dégg na dëgg waaye ku ko du mooyu du mooyu na dëgg téere la boo xam ni ak neen mënu cee dugg mënu ko bàyyi koo ca kanam waaye mënu ko bàyyi ca gannaaw téere la boo xam ne sunu borom daf koo garanti depuis ba mu wàccee ba ila yawm alqiyama kenn mënut a fexe ba dugal ci lu ci bokkut woon waaye kenn mënut fexe ba génn ci lu ci bokkoon téere la boo xam ni ku ko topp gindeeku ku nekk noon ke paaram dina ballalu ci ay njariñ yoo xam ni dana yëg ni mu si ko amee feneen moo tax téere la boo xam ni mooy dusturul mu'min fil xayaat constitution bi nga xam ni ab jullit ci la war di sukkandiku pour léppam mbokk yi mooy alquran xabaar yi ñu jiitu woon lépp mi ngi ci li war a xew téyeeteegut ci jeexu jamono mi ngi ci waaye li ñuy dund tamit mi ngi ci borom bi def na ci tawfiq yi képp ku topp gindee yàlla na borom bi subhanahu wa taala boole ñu ci ñi muy gind kon ci tawfiq suñu borom sunu bind bi mujj ñu ngi taxawoon ci fanweer ak ñetteelu aaya ci suuratu nuur fanweereelu aaya ak ñett ci suuratu nuur tey noo ngi tàmbalee ci ndimbalu suñu borom ndax kat moom rek moo nu mën a dimbali ci lépp lu ñuy def wala lu ñuy wax la hawla lana wala quwwata lana illa billahi alali alazim kon ci ndimbalu suñu borom ñu fas yéenee tàmbali ci laaye jii di laaye fanweereel ak ñeen ci suuratu nuur suñu borom subhanahu wa taala di wax ni aoudu billahi min alsheitan rajim ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين إلى آخر الآيات لا يجي في فنوير الأجنب xam ngeen ni saar bi ñu nekkoon ci suuratu nuur du ma dañ di baamtu di fàttali ndax inna dikra tanfaul muminin saar la bu mag comme ni alxuraan yépp mag yàlla waaye saar la bu mu ëmb na ci ay njariñ loo xam ni bariwul saar booy dugg fekk mu ëmb ko moo tax saar la bu may wax ni jaar nañu jàngal ko jaboot yi jàngal ko soxna yi jàngal ko gone yi yar ci waa kër gi defarul biir am ca su ko defee defarul biti day yomb suuratu nuur mooy saaru leer bindam tay bi nag dafa mel ni nag mooy bind buy firndeel saar bi liñ doon wax lépp leer lay jural aji gëm yàlla ci biir xolam waaye bindam tay bi nag dafa mel ni ak lëfa gi ci luy gën a firndeel leer boobu nga xam ne moom la borom soo kala tuddee saar sunu borom wa laqad anzalna nun yàlla day wàcce nañ ilaykum ci yéen nit ñi aayaatin ay aaya yoo xam ni mu bayyinaati yu nu leeral la yu nu faram-fàcce la laay yi borom bi subhanahu wa taala da ciy takk alquran di ko jox ab gëddëm bu war a mën a def ab jullit sukkandiku foofu pour jox alquran gëddëm laqad anzalna wa laqad anzalna nun yàlla noo wàcc aayaatin ay aay yoo xam ni mu bayyinaatin yu firintiku la yu faram fàcce wu yu leer la sunu borom day wax kitaabun téere yi boo xam ni mubaarakun dafa barkeel anzalnaahu ilayka ñoo ko wàcc ci yow li yadabbaru aayaati ngir ñu mën a settantal aaya yi ci nekk di ci def taxaw seet lu ko wax lii ñu ne yàlla ñu ne yàlla de ay waxamul waxi kilifa dëgg la xaaral ñu settantalaat wal yadakkara ulul albaab ñi am xel ñoom bu ñu sëggee ci alquran danañ ci jëriñ kitaabun téere yi boo xam ne uxkimat aayaat yàlla dafa xereñi aaya yi noteel summa fassala yàlla firi ko faram-fàcce ko firi ko ba mu leer lu tax mu leeree ni mu leeree parce que min la doon xakimin xabir ñu ngi bàyyi ko fa yàlla da ngay liir yeneen téere mu am ay complication yoo xam ni daa jar faram-fàcce bu métti te ba pare sax am ñu ko du dégg waaye amu ci alquran uxkimat aayaat summa fassala min ladun xakimin xabir moo tax borom bi ni wàcce nañ ci yéen aayaatin ay aay yoo xam ni mubayinaatin dafa leer nañ ñi amul am lënt mu ci am li jëriñ nit ñi ci àddina ak li leen di jëriñ ci àllaaxira borom bi subhanahu wa taala daf ko tënk ci alquran aay yu bare laqad anzalna nun yàlla wàcc na ilaykum ci yéen kitaaban téere boo xam ne fii dikrukum li leen ci defar li leen ci waar li leen ci fàttali borom bi daf ko dëggal ci biir téere su ma toppoon aaya yi ñëw ci alquran di dimbali aaya ji dana tudd lu bari ci ay aayaat moo tax alquran ci boppam mooy firi boppam alquran mooy firi boppam moo tax boo delloo ci tafsir ibni kathir te muqaddima bi suratul baqara li muy lim anwaa tafsir dafa wax ne li gën ci lu ñuy firee alquran mooy alquran inna xayra ma yufassaru bihi alquran alquran alquran boo ko bëggee firi firi mu leer alquran ñi boppam moo koy firi moo tax imam bu mag Cheikh Mouhamadul Amin Shanqiti taarif na téere boo xam ni benn la ci façon tafsir yi téere boobu moom benn la ci façon tafsir yi borom xam-xam yi taarif ñu ngi ko tuddee abwaabu bayaan fi iidaah alquran bil quran ah téere boo xam ni ay ceeñeer la yu nu sànni ngir leeralee alquran alquran ngir alquran mën a leeral boppam moo tax boo toppee téere da ngay gis ne ah li ëpp ci daanaka téere ba lépp aay yi mu indi dafay indi ay aayaat yu koy firi soo demee surtout Ali Imran suñu borom day wax ni téere la boo xam ni am na ay aaya yoo xam ne dafa firiiku leer am na aaya yoo xam ne dafa am lu lënt ci liñ bi waaye bu ñu topp ba ci biir da nga gis ne alquran lu ci lënt rek moroom a firi kon borom bi subhanahu wa taala wàcce na ci ñun ay aaya yoo xam ne bayi naa dafa am ay leer allahu akbar depuis alquran wàcc ba tey ñi fi ma sa jaar ñëpp ñoo ngi doon jariñ ci alquran te yóbbaalewuñ njëriñal ñi mujjee ñëw ñun ñii ñu ngi ñu ngi jël jëriñ ci alquran te ñi war a ñëw suñu ginnaaw ndax ñun danañ faam bàyyi téere bi waaye ñooñu mënul ñu leen a xañ jëriñ bi ñuy jëriñ ci alquran suñu borom wa mathalan wàcce nañ ba léegi ay misaal min alladina xalaw ci ñi nga xam ne ñoo paase woon min qablikum ci jiitu leen wàcce nañ ay aay yoo xam ne dafa leer waaye def nañ ci ay misaal yoo xam ni min alladina xalaw min qablikum mooy ñi leen ci jiitu loolaay la mooy yàlla ci boppam daf noo baax tiire boo xam ni wallahi jullit bi su fekkee daa bàyyi léppam dëgmal alquran kese yàlla dana ko defal ci di xayra yi dunia wal axira loo xam ni foofu ko ndax benn mag dafa wax ci am solo benn waaye daa dikk ngàbbab téere ni ko damaa bëgg nga jàngal ma téere bii jàng alxuraan ba jeexal ko mu ne ko déedéet mu ne ko bala ngaa jàng waxi jaam yi da ngaa war a jàng waxu borom jaam yi allahu akbar xikma lu xikmatul baaliya xikmatul baaliya bala ngaa sonn livre ñoom jiwag livre monsieur jiwag livre nangam déedéet bala ngaa sonn ci livre ak kenn sonnal ci livre bi nga xam ne ki ko bind ki ko wax moo bind ñu bind livre yëpp wa masalan ay misaal mi ngi min alladina xalaw min qablikum ci ñi leen jiitu woon xoolal rek tey nga toog fii documenté wu ko doyal sëpp te demoo ci internet demoo ci jumtukaay yi ngeen xam xoolal nga toog fii xam la fi newoon lépp wala li ëpp ci lu fi newoon ba àddina soo ba léegi te fekkee woo loolu am fan nga koy may moo tax wolof yi wax ni nopp dana mag borom bopp dana mag borom nopp day mag borom parce que day dégg loo xam ni lii ba muy am ba tamaamaati maam di dóor bopp day mag borom parce que da nga ciy sol ci xam-xam loo xam ni xam nga ni lii moom bu dul woon ak baax bi yàlla ak alquran ak li ñuy firi ci di faram fàccee joxe doo ci joxe kon yàlla sa dal nañu ay misaal ci ñi ñu jiitu woon ngir ñu mën ci lu tax yàlla di ko def bokk na ci mooy ngir ñu mën a waaw mën a fàttali ña baaxoon yàlla indi ñu seen dund ñi safaanoon yàlla indi ñu seen dund nga jàngal alxuraan ñu ne am na benn waay bu fi nekkoon bu ñuy wax xaarul ñu ne ah ñi bari alal kaay leen déglu boo dee xaarul rek woote bi mooy yee yee ñi bari alal kaay leen déglu loo jaay bari alal sa compte daa fees alal nga am xaw ma kaas kaas yi moom huit huit yépp immeuble yépp sato yépp souterrain yépp comme ça yooyu ñu ne yàlla nee na inna xaaruna kaana min qawmi Moussa sallallahu alayhi am na benn waay bu nekkoon ak Moussa bu ñëw xaaru bu xamal fuuy ñàkk bi yàlla yàlla may ko ci alal loo xam ni inna mafatixahu li mu amoon ci ay caabi la tanuubu bil usbati ulil quwwa quinze personnes vingt personnes caabi yi ñoom ñoo koy mën a yëkkatee ñoom maanaam daal li mu amoon ci ay magasin ak caabi caabi yi waxuma li mu amoon ci alal de caabi yi ubbi alal yi fees na koosa baax allahu akbar billahi aleykum lan ngeen xalaat ci koo xam ne ay caabeem fees na koosa baax caabi kon caabi ni tuutee nga xam ni baax ñuy dugg ak ak tuuti par rapport ak la nga ci biir magasin suñu borom ne ay caabeem boo ko yebee ci koosa baax fees na ndeysaan yàlla jay ko mu jayee ko yàlla jay ko mu jayee ko boo nee ko yàlla moo la ko war a di ko fàttali mu ne waaye innama utitu ala ilmin indi sama technique bi ba ma demee France jàngi fa ba ma demee Canada jàngi mu ñëw am diplôme sangam ci la ma gars yi fii fii ci ñeel ma nangam nangam jàpp na ci yàlla waaye technique am la id qaala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbu al-farihin ñun dëkkal naa ko xaaroon du nii de yàlla bu géewu ko nii de xaarum bii taxut yàlla jox la alal waaye su xista ba mujjee mu dëgër bopp fuuy yëpp boppam seytaane jay ko upp ko mu nelaw noonu def beew ci alal de ba yàlla xëy mbugal ko xam ngeen ni ko yàlla mbugalee yàlla daa xëy ni suuf xaaru na laa bëgg nga wannal ma ko tout de suite na gaaw léegi léegi léegi allahu akbar rabbu samawaati wal ard kooku mooy borom asamaan suuf innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun suuf ni nga yee xaaruna li fa tëx ku du ci boir ya dem bale ya dem alal ja dem ginaar ya dem taaxi kaw ya dugg jabar ja doom ya tuur yàlla naa di koy mëgg ci kaw suuf maasale ko mu nekk xabaru kaani ñu defal la ko suuf xaxas bi la ko nekk misaal na mu yóbbaale la ñoom firaaw naag ñoom ñi ci def te borom nga jàngat ci genn wàll ñu ne am na ku fi jaaroon ku baax ku mën a jaamu yàlla ku ñuy wax Marie ñu ne jigéen ñi bëgg a tàngee kaay leen déglu jigéen bu ragaloon yàlla bu tëkkoonu su kumbaam su góorgóorlu woon buntu boobu du ma ci guddal ndax suuratu Mariam sori ñu tafsiroon naa yàlla baax ko ba ko lu bokkut ak lam ko mayoon te biir néew nañu ko suñu borom may mooy xale bu tëdd ci kaw laal di liir toll ci waram naam jug toog di wax daa nga jëy ni abdullahi atani al kitab wa jaani nabi wa jaani baraka inama kunt ah léegi mariam nekk kaw ci na kon léegi booy jaay baax wa matala min alladina xalaw min qablikum booy jaay saay saay it nag wa matala min alladina xalaw min qablikum wa mawidatan sunu borom mu ni téere bi ak waaru bi ak fàttali ci ay tëgg ak xemem la waat lil muttaqina ñeel ñi ragal yàlla subhanahu wa taala ña fi doon mbërmbër ñu mel ni firaw naa ci mbokk di tabax ay pyramide nga xam ne ba tey boo demee ñu naan abraham yaa ngi da nga yéemu ci yàlla subhanahu wa taala allati lam yuxlaq misluha fil bilad lu mel noonu musul am ci kaw samut nag mu ni alladina jaabu soxla bil waar ñi nga xam ne ñoo def ko yàlla may leen technique dem ci biir montagne yàq ko néeg waaye daal ne lépp ci biir bi montagne yàq ko ndax matériel yu sophistique yi am tey daa amoon déedéet waaye kan xarañ la leen yàlla joxoon ba man lool loolu bu mu la jaaxal ndax moom yàlla mooy borom borom wa firawna dil awtaad alladina taxaw fi lbilad fa aktaru fiiha alfasaad yàq ba nga naan xanaa yàlla nekkatu fi mu ne anam kay yàlla lu ko soob lay def ci waxtu lu ko soobee kenn du ko wax gaawantul déedéet kenn du ko wax gaawantul affaire baa ngi bëgg yàq kaw suuf moom dafa neex rek lay def dafa utal lépp wa kullu cheyin indahu bi miqdar waaye suñu borom ne ba ma jubloo ci seen i mbir fa sabba alayhim rabbuka sawta adab wala bi yàlla tawee ay taw yu jëriñ bu gën keroog la nga xam ne inna rabbaka la bil mirsad wa matalan min alladina xalaw min qablikum suñu borom ni misaara ngi nii ci ñi leen jiitu woon wa mawidatan ak waalu fàttali lil muttaqina ñeel ñi ragal yàlla bopp laaye ji firnde la bu lay wan saa buñ la jàngalee alquran fàttali la ko te sa xol defaru wut wéetal nga jooy ci say bàkkaar te nga xam ne yow sa xol bi baaxut de dama ni alquran mawida la lil muttaqin ak waar ak fàttali ñeen ñi ragal yàlla gis nga jullit dafay mar alquran comme ni nit di maree ndoxum seen dangaa yenn ci naaj yenn génn ñax mar ba sa buli ci wow ngay wanaasu di jàllale parce que dangaa mar gis nga bu ñu la andilee kaasab ndox wala patat ndox jox la ko nga ni ko tuy daal di yëg li nga yëg loolu la jullit di mel ci alquran moo tax damay wax ni dayoo bi dara bu mel nii am tafsir quran wallahi xamuñu ko sax xamuñu ko xamuñu ko alquran bi dañ koy soxla def bu ne guddi ba ci subaat boo parce que mooy rootkan bi mooy root sa xol da ngay dem ba xol bi dafay defal dafay bëgg yàlla dafay nam ko ko jàngal alquran wa mawida ak waar la fàttaliku lil muttaqin ñeen ñi ragal yàlla yal na yàlla soxla boole ci ñoom suñu borom ni allahu yàlla nag nuuru samawaati wal ardi mooy leeru asamaan ak suuf allahu allahu yàlla nuuru samawaati mooy leeru asamaan wal ardi mooy leer ak suuf yàlla moo leeral asamaan waaye tamit moo leeral suuf suñu borom dafa leeral asamaan leeral suuf loo gis mu leer rek ci leeral suñu borom mu ngi ko la bàyyi soo demee ci sax muslim ab xadis ñëw na fa boo xam ne yéen ci yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kii daay ci dox suñu diggante gi yàlla leer la leer boo xam ne bu ko yàlla ñëwoon mu réer lépp fay lakk àddina bi yëpp day lakk sawara mooy lakk wala leer mooy lakk sawara moo daan lakk léegi nag doon dafa foor parce que mi ngi bàyyi ko ca yàlla ba lépp lépp bay lakk lépp tout àddina bi day lakk ndax laaj leen Moussa bu ko déggee walaay am mbokk yi tudd boo déggee kuréel yi nga xam dañuy wax ne dañuy gis yàlla wallaay loolu jërul mer daal man dama jàpp ni jërul mer de gis nga loolu boo ko déggee dafay wax da nga koy yërëm nga ñaanal ko yàlla loolu jërul mer waaw wax dëgg yàlla daf koy wax da ngay jàpp ko bu dof la Muusa alayhi salaam ak daya bi mu am ca yàlla dëgër ji mu dëgër ah dundu Moussa boo ko jàngee dégg nga da ngaa xanaa yeneen yi yàlla yónni yëpp Moussa ci gën a dëgër benn bis Moussa daal léegi ne yàlla aadama laa bëgg nga war ma xam nga koy aadama maam aadama suñu borom ne ko ah Moussa loolu day aadama mu ne ko wan ma aadama rek aadama rek laa soxla wan ma suñu borom wan ko aadama ndax xam ngeen ab yeneen mën naa ñaan yàlla loolu ci kaw suuf muy dund sax yàlla may yàlla wan ko aadama mu ne ko hey yow yaay aadama yaay sunu maam aadama mu ne ko waaw mu ne ko yow la yàlla bindoon si loxolu kenn la mu ne ko waaw mu ne ko defal la nangam ak nangam ak nangam ba lim ba yeggal mu ne ko waaw mu ne ko yow toroxtaange gi ñu nekk yëpp yaa ngi ko teg lan la la yàlla yi dugalee àddina ngay xoole ba nga génn àddina du li du nit ñi li ñuy torox ni ci kaw suuf yaa ngi ko teg soo nu bàyyi woon àddina du foofa la muy nekk yaa ngi nii génn nga sa bopp génn wàll Moussa dafa dëgëroo ni kàddu ba nii ko la ñeme Adama mooy maamam waaye Adama xamu ko Adama ne ko yow yaay kat mu ne ko man maay Moussa mu ne ko Moussa bani Israël mu ne ko waaw mu ne ko Moussa ma nga xam ne yàlla da koo defal ay may ba tawraat yàlla si bind ci loxol boppam xam nga loolu tamit tawraat rek fa am alquran moom yàlla bind ko ci loxol boppam da ko waxi Jibril Jibril jox ko yonent bi sallallahu waaye tawraat yàllaa ko bind ci loxol boppam jox ko Moussa xam nga loolu ngeen ko réeré mu ne ko yow la yàlla bindee téeréem bi ci loxol boppam mu ne ko waaw mu ne ko Moussa yaa ma bett dëgg-dëgg Moussa yow kilifa gu doy yow nga di ma yegg ci mbir moo xam yàlla dogal na ko balaa maa judd ci loo xam ne ay ati ati ati at ah waaye Moussa yow waroo xel dara waay yéen ci yàlla bi ne ne moo taxit xuloo ba jeex aadama yaay Moussa Moussa alayhi salaam xam ne yàlla dama laa bëgg gis suñu borom ne lan taraam Moussa mu dëgg dëgg seen tàkkul leneen boobu mu mën ta nekk xanaa kii nii day gis yàlla boo xanaa daa gën a foor Moussa garaat wax te Moussa di yonent bokk ci ullu am Moussa comme yàlla doon wax muy léegi affaire bi neex na lool bëgg koo gis ñu insisté ah comme daa insisté yàlla mu ne xaar mu ñemal la ndax bu ëllëgee du ko waxati ndax am na mbir yoo xam bu nit laajee nga ne ko géet mu laaj nga ne ko géet mosal ko bu ne ko jël bu ëllëgee du ko laajati borom bi subhanahu wa taala daal di yabal ak leer lay sa leer rek ak com ak leer ca montagne wa montagne nit ku gën a dëgër nit ah déedéet montagne waaye bi leer bi ne tay ci montagne bi montagne bi ne tata fa xarra Moussa faaxan Moussa ñi jàngal daanu xam suñu borom bàyyi ko fa rek muy kaddi kaddi di kaddi kaddi di kaddi kaddi ba xëy na diko falamma afaam ba ma xëy ni ko lëm di ko wax mu qaala ne subhaana tudd naa sax sell li ma wax ëpp na subhaanaka tudd naa ko teel léegi dama bëgg gis yàlla kenn waru koo wax fii ci at xanaa xanaa subhaanaka tudd naa ko teel léegi te yoo kenn war a sànq gis yàlla ci kaw suuf ndax ëpp na subhaanaka tudd naa ko teel dootuma ko waxati ndax li nga def tey day wax sëkk tubtu ilayka tuub naa du ma ko waxati ah yow nga ne moom kaay ma war la yàlla subhaanallah nit ñi léeg-léeg dañuy wax loo xam xajul seen gémmiñ yi sa waa xam ni diw yàlla laa kaay ma war la yàlla loo gis loo gis yàlla la nga bëgg yàlla ñàkk teggin la loo gis yàlla la nga xaj bi tam lu mu doon mbaa boobu bi la foo dem ñu ne yàlla la boo duggee ca wala wala wallahi wallahi yàlla dañu jox xel pour ñu xalaat dama ne xam nga yoo xam yow mbir da ngay jox borom xam-xam pour laa xalaat di ko dikoo sam xel rek léegi nga xam ne mbir mi doxul ñaari jéego ngay dox rek xam ne vraiment yoon wi jëmul kër yoon wi aw jàll la jëmul kër wax jàng rek am solo kon borom subhanahu wa taala ne allahu yàlla nuuru samawaati wal ard mooy leeru asamaan ak suuf haas kursi asamaan suuf jant weer ajana yu yëpp leer ndeysaan mi ngi balluloo ci leeru borom bi subhanahu wa taala suuf si li fi leer lépp même jant bi xoolal jant bi benn jant leeral ak lépp yëpp ci jox ñu fekk benn weer leeral adduna bi yëpp ci waxtu yi lay génn te loolu ak topp la ci leeral borom bi subhanahu wa taala suñu borom bi yàlla day mooy leeru asamaan ak suuf matalu nuuri yi ni taalal leeru suñu borom suñu la ko bëggoon wax ba mu leer yàlla mooy leeru asamaan ak suuf leer nag borom xam-xam dañuy wax ni ñaari xaaj la lépp yi ma jot yi lépp mooy leeral suuf si jant bi weer bi asamaan si loo xam da ngeen xool gis xam ne lii daa leer leeru maana yi mooy leer boo xam ne am maanaa la lu làqu la mooy leer gi yàlla def ci alquran ba pare jël ko root ko àmbale ko ci xolam ci diggu yàlla leer boobu nag la suñu borom bëgg a melal mu ni masalu nuuri yi misaalam leeru suñu borom ka miskaatin mi ngi mel ni ak ñiitu ñiitu la olof français yi tuddee lampe olof yi moom la ñuy wax lampe masalu nuuri yi misaalum leeru suñu borom bu tàbbee ci xolom ku gëm yàlla ni muy def ka miskaatin mi ngi mel ni ak ñiitu mu ngi dox lampe wala ma ne lampe tampe mooy lampe pétrole yi masalu nuuri yi misaalu leeru suñu borom leeru ngëm leeru alquran su tàbbee ci xolu aji gëm ni muy def nii la kamiskaati mi ngi mel ni ak niitu fiiha nekk na ci biir niitu la misbaaxun ab lamp xam ngeen lamp pétrole gis ngeen lamp pétrole gis ngeen jël leen misaal bi ci lamp boobu aay jël leen ko lamp pétrole kamiskaati mi ngi mel ni niitu mooy lamp fiiha nekk na ci biir niitu la misbaaxul ab làmp ak misbaaxul làmp ba nekk biir niitu nga fii su jaajëfee mi ngi nekk ci biir ab verre verre wala gis ngeen ba léegi làmp bi ni mel làmp bi yépp mooy niitu bi fii xaar nekk na ci biir misbaaxul ab làmp ak misbaaxul làmp ba. fii du jaajatin ñu ngi ko dugal ci biir beer benn beer ak bu jaajati lampe boobu ci leeraay ak mën a sànni ay ceeñeer ka annaha mi ngi mel ni kawkabul biddiw kawkabul durri yi biddiw boobu ñuy tuddee durri yi muy biddiw bi gën a leer ci kaw asamaan biddiw boo xam ne leeraayam day mel ni jama misaal xóota ngi nii waaye mu neex a comprendre ba aay jeex nga xam ci dara suñu borom al misbaaxu làmp ba fii su jaajëti mii nekk ci biir beer ak su jaajëti beer ba ci leeraayam ka annaha mi ngi mel ni kawkabun bi durri bi di bu ñu tuddee durri leer ba mel ni jama yuuxa bi ñu ngi koy taale min sajaratin mubaarakatin ci garab bu barkeel ka muy saytu zaytu la indi garab zaytu léegi ba léegi ñu jëli pétrole daa essence déedéet pétrole dafa xeeñ te njariñ ba daa am foofu yem zaytu daa xeeñ neex njariñam làmb lu bari tabarke zaytu na garabu zaytu muy olive ak garabam nga xam ne garab bu barkeel la war ngeen ci xam dara tafsiru naa tontu baaxam sunu borom zaytu na ni ñi ngi koy taalee jiw koo xam ni jiw ak olive la laa sarriyatin amul keppaar bu koy baara ci wet ak ndeyjoor wala garbiyatin amul keppaar bu koy baara ci wet ak càmmoñ jiw ko dafa leer ba yakaaru tuuti kon zaytuha jiw ko yu doy mu leeral lañ bëgg mu leer walaw lam tamsashu naarun donte taaloo la am ko allahu akbar mos ngeen gis lii lampe boo jënd teg ko sa biir néeg mu mel la lampe bi ni mel ba noppi ni la boo amul temps lampe bi leer balaa nga kaa taal loolu mooy alquran loolu mooy iman ci xol ko gëm yàlla matala nuuri yi misaalu leen ka miskaati mi ngi mel ni ab ñii fiiha nekk na ca misbaax ab lampe al misbaax lampe ba nag fii du jaay ñu ko dugal ci biiram leer ak bu jaajëf ci weer ba dafa mën a leeral ba ka annaha mi ngi mel ni kawkabun ab biddiw durri bu mel ni jamaa yuuxat yi ñu koy taale min sajaratin ci garab goo xam ne zaytunatin diwat olive la sajaratin garab goo xam mubaarakatin dafa barkeel ndax yàllaa ko barkeel zaytunatin zaytun lay doon laa sarqiyatin day leer ba dara du baare lay doon wala garbiyatin day leer ba dara du baare càmmoñ yakaadu tuuti ko zaytuha jiw ka yu buy u leeral ah walaw lam tam tas bu naarul doon ci sawara laal nga lu tax mu ni nuurun leer ngii moo daje ala nuurin ci kaw leer allahu akbar dëppaatu beneen yoon ak ñaareelu yoon misaal bi misaal mu jot la mu ñor borom bi di ko jox ñi gëm yàlla ñu njub ak mbaax ak gindee duggee ci xolub ni léegi xam ngeen xol comme ni ko borom xam-xam yi xaaji dafa am xol bu dee am xol bu dund am xol bu feebar xol bu dee mooy yéefar xol bi nga xam ne moom dafa feebar mooy naafeq xol bi dund mooy aji gëm yàlla bi comme boobu ñu tax a jub ñu yem doomu aadama day jékki-jékki ba mu yàgg gindeeku nekk ci cànkute kon daal ma ngay tux ma ngay tambaamal ma ngay caaxaan ma ngay saafam ci xale yu jigéen ña ma ngay sàppatan ci fële moom daal yoonu nekkul ci julli xol bi daal sa buy buy biis rajo sax ba alxuraan egsi da koy bàyyi mu bàyyi mu jàll boo nee yàlla nee na affaire bi da koy sonal dem jàkk moom bokk ci programme l'islam moom daanaka jàng ko da ngay tardeel sa bopp ay ay ay ay ay nekk imaam ak yooyu moom ay ñàkk loo def la moom daal loolu mooy dundam aw na kaarama yi tam suñu borom ni ku mel ni ku dee ba mel ni kii xoolal kooku daa dee bari na ñuy dund fekk dañoo dee ndax xol mooy dund fa ahyaynaahu yàlla mee na ma dundal wa ja'alnaa lahu ñu defal ko nuuran leer boo xam ne yamshi bihi fi nnaas moom lay doxee ci suñu borom ni kaman masalu fi zulumaat ndax kii dana nuróo kitaab déedéet léegi kookalaat la jël ko verdi ko ci aaya bi alxuraan leer yàlla subhana taala jël leer boobu nag ak leer ak bindeef tàbbal ko ci biir xol bi léegi bala muy tàbbi ci xol bi bu leen fàtte delluwaat génn gannaaw kullu mawludin yuladu ala al-fitra lii bu judd même bu doon ab yéebare la jur da ngay judduwaale appareil war a mën a baax maanaam yàlla dafa bind ci nit ki appareil buy tax nga baax ak appareil buy tax nga bon buñ bëree ñoom ñaar bu nag moroom noonu ngay ñaan kon mawludin lii bu jut yuuladu alal fitra ak ku mën a juddoo même bu dee juróom-ñetti junniy maam ay yéefar lañ day judduwaale appareil war a mën a baax moo tax boo jiimee léegi yàlla tudd ko ci rek war a mën a baax léegi fitra yi yàlla jooju mooy làmp bi fitra yàlla jooju ji yàlla def nga xam ne appareil bu nit ku judd war a mën a baaxaale da koy indaale mooy làmp bi kamishkaat mooy niit bi fiiha nekk na ca al misbaaxu ab lamp lamp bi mooy lan mooy xol doomu aadama bi nga xam ni ca lay ceeñeeri mbaax di càpp bi pour nga mën a gindee al misbaaxu lamp bi fii du jaaji dafa nekk ci biir benn meer dañ koo encasté verre boo xam nga nu ma ko mën a joxe ferab jamaa buñ dugal ci biir kees ak yàqu utal ko jàppukaayu dur àmbalee ko oo kooku kees da xanaa bu laa bu duppee sax mu war a mën a leeral li ñu nekk gis nga yéen bool mooy keesu jullit bi